Euh, Macky entretien dans son discours di leeral ni moom euh, yàgg na wax mu ja jàmbaar la wax na ko ci dëkku tubaab yi wax na ko Union européenne wax na ko ci kanamu Obama wax na ci kanamu Nangam li mu wax noonu yëpp dafay fen waaw lii moom ma koy leeral bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy déglu waxul dëgg waxul dëgg euh, li muy wax ci kanamu tubaab yi suy li suy làkk tubaab bokkut ak li muy wax ci kanamu nit yu ñuul yi fii suy wax ak Macky li mu wax ci tubaab yi lu leer la. wax na ci benn émission am ci benn interview mu ne kat ah yéen tubaab yi yéen seen société ak yéen seen société yi du ñu benn yéen mën ngeen régler ay problème yu mel ni góor jigéen ci benn loi bu ndaw boo leen jël rek doxal ko waaye ñun suñu dëkk yi ça va prendre beaucoup de temps mun ñu ko def ci benn loi rek da ngeen ñuy may nag ñu jël le temps qu'il faut waaw li koy wax lii kii dafa